salaamaaleykum waa presse en ligne bi salaamaaleykum journaliste yi fi tew yëpp ñu ngi nuyu kenn ku ci nek ci turam ak santam donc di nuyu les jeunes leaders du département de Tivaouane nga xamanteni coalition bi yëpp lañ lëkkale ñi nga xamante ni ñu ngi sur la grande coalition dans la grande coalition mo xam nga nek APR mo xam nga nek rewmi mo xam nga nekk parti bu ci man di doon boo xoolee nag dañuy fexee tënk rek li waral ndaje mi su ko defee bu jàllee ñu jël kàddu gi jàllale ko ci ki nga xamante ni moo fi représenté waa PS parti socialiste ak ki nga xamante ni moo leen wax sëñ mu dem moo fi représenté APR mais biñ boolee ñun ñëpp dañoo jël suñu kàddu méngoo ci dëppoo ci jébbal ko suñ mu dem étant comme coordinateur wala boo xoolee nag lépp loo xamante ni ci àdduna lu man di xew amna sabab ci amna lo loo mo koy yëngal dara taxul nak, dara warul ndajami mi muy bi ñu ci élection législative da no gis ni lu musta dal département Tivaouane moo moo dal muy perte ay élection législative way ñu perte sax ay élection donc biñu défé constat bi ci ñepp ko xalaat ñepp ko constaté ñu lu fi musta am amna fi kon kat lolu jarna jangat jangat bi xëy jeunesse bi nga xamante ni ñom lañ waroon favoriser ñom lañ waroon dolel jeunesse bobu kat mom lañ detteel ñom lañ laisser en rade ci bép décision politique bu fi man di am wala ci côté emploi wala ci xey wala lu ci man di doon donc loolu motax ñu ni ay ndaw lan nan jël suñu dolé bolé ko ñun ñëpp ndaxte li ñoo fait la force tay ji lo mën di dégg ci aduna wala lu mën di xew c'est la jeunesse qui tient au du pavé le haut du pavé

donc nous sommes bu baax c'est Mamadou Diouf secrétaire général des jeunes spéciales du département de Tchad, et vice-coordonnateur du cadre des jeunes leaders de Benno Bokk du département de Tchad. après les salutations à la presse et à l'assistance je m'en vais vous lire la déclaration de presse du cadre des jeunes leaders du département de Tchad les élections législatives du 31 juillet 2022 ont fini de donner le verdict avec la victoire de la coalition Benno Bokuyakar au niveau national avec une nette majorité, avec 82 députés sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Ainsi, la structure des jeunes leaders du département de Tuan félicite le président Macky Sall, président de la grande coalition Benno Bokuyakar et de la majorité présidentielle et soutient sans réserve le choix porté sur le camarade Amadou Mambio, comme président de l'Assemblée nationale, un militant de la première heure qui capitalise une expérience de représentant du peuple depuis 2012 et maire de Richard Thor depuis 2014. Et félicite le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour la formation du nouveau gouvernement avec à sa tête le premier ministre Amadouba, un gouvernement d'action et d'attaque dans lequel la jeunesse est bien représentée malgré la défaite enregistrée au niveau du département de Tuan, nous encourageons tous les responsables et les exerçons à la mobilisation pour renverser la tendance d'ici 2024. Cette défaite est une première depuis 2012. C'est ainsi qu'est née la structure des jeunes leaders de Benno Bokuyakar du département de Tuareg pour un changement de paradigme en créant un cadre de concertation et d'action pour la jeunesse de Benno Bokuyakar de la grande majorité présidentielle dont l'objectif principal est la reconquête du département de Tivaouane et l'adhésion massive de la jeunesse à la politique du président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent Horizon 2035. Nous comptons vulgariser pour une bonne communication ces réalisations dans le département ou au niveau national. Nous comptons à travers la structure aller dans toutes les communes du département de Tivaouane à la rencontre des populations en général et des jeunes en particulier. Une jeunesse consciente des tensions de la sous-région, nous avons décidé de nous dresser en bouclier autour du président Macky Sall pour pérenniser la paix, la stabilité de notre pays contre, les, les menaces des forces occultes venant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Malgré que la jeunesse soit laissée en rade dans les décisions, dans les instances de décision politique, dans l'emploi et l'employabilité des jeunes à travers les différentes structures de l'État, mais aussi dans les entreprises locales. Nous demeurons une jeunesse dynamique d'attaque et d'action vers des solutions qui se mobilisent à chaque fois que, que le besoin se fait sentir pour répondre à l'appel du président Macky Sall pour un Sénégal meilleur. Nous appelons tous les jeunes autour de la structure pour constituer une force de réflexion contre cette opposition qui n'a qu'une seule arme, la, manipulation, et un seul programme, le mensonge. Dans ce contexte qui coïncide avec la célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, nous souhaitons un bon magal à tous les pèlerins et appelons les chauffeurs à beaucoup plus de prudence sur la route. Ainsi, nous souhaitons la bienvenue à son Excellence le président Macky Sall, président de la République, qui sera l'hôte de la ville sainte de ce jeudi 6 octobre 2022 et appelons toute la population à lui réserver un accueil chaleureux. Je vous remercie. Euh, salam alaikum. Euh, journaliste di nuyu suñu camarades yi yi nga def le déplacement fait point de presse bi man ma ngi tudd Serigne Modou ñu gën xam ci Serigne Modou man coordinateur de euh, euh, structure bi euh, des jeunes leaders du des jeunes leaders du département de Tiawan. ñun ñëpp xam na ni élection législative yi gis nañ ni Benno Bokk yakar mo nek ci kanam avec 82 députés euh députés donc euh, ci 65 députés yi nga xamni ño nek assemblée nationale. kon li ni ñëk def moy féliciter ki nga xamni la coalition bi proposé won mu jall comme président euh, assemblée nationale muy euh, Amadou mam Diop bi nga xamni donc militant au première heure la ko xamni timit trois fois. Je suis député à l'Assemblée nationale depuis 2012 depuis 2014 je suis maire bu euh, euh, Richard Toll kon suis nañ ni amna légitimité amna légalité amna timit base bu ko mën may mu nek li président assemblée nationale ci euh, formation bi di Benno Bokk yakar ci lolu di féliciter le président de la République son excellence monsieur le président de la République monsieur Macky Sall ci formation gouvernement bi nga xamni def nako té ki nga xamni ni la tek ci bop bi di ki nga xamni moy Amadou Ba euh, li nu gëna neex nak ci formation gouvernement bi moy danoo gis ni daanaka jeunesse bi jox nañ jox nañ leen ci seen place bu baax a baax baax ci gouvernement bi kon loolu dañ ko ci félicité bu baax a baax a ñun ñëpp xam nañ ni euh bi nga xamé ni élection législative bi amna ci département bu Tivaouane tendance bi dafa renverser wu dem ci opposition bi ñu gagné li nga xam ne mooy département bu Tivaouane loolu nag dañuy wax ni guléet mi ngi soog a am ci département bi loolu nag moo tax ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ ñun ñi nga xam ni xam nañ ni Sénégal euh, ñor nañu ñun ñi nga xam ni tey wóor nañu ni donc le président euh, euh, Macky Sall mu ngi defar réew mi ñun ñoo àndandoo dajaloo ci benn structure muy les jeunes leaders coalition benn Bokk Yaakaar bu Benno Bokk yakar ak majorité présidentielle bi nga xamni donc mom moy ñi nga xamni ñepp ñëpp parti yi nga xamni yépp dañu dañuy le président Macky Sall ci régime bi nga xamni mom la nekkee lool nak liñ ci jaar moy donte defet amna ñun dañuy félicité dañuy encourager ñi nga xamni moy responsable yi nekkoon ci département bi di leen ñaax ñu gëna dem ci remobilisation ndax gëm nañ ni échéance yi di ñëw tendance bi dafa wara renverser waat jógewaat fi mu ñewat ci Benno Bokk yakar te japp nañ lu mën a nekk la parce que xam nañ ni tay élection yi passé même bu fekkee ni dañ ko ñak ñàkkuñu ko parce que dañu minoritaire mais dañ ko ñak parce par manque d'organisation ndax bu xolé euh li nga xamni moy mooy élection locale yi jall suñu xolé les listes parallèles xol liste yi gagné xol ñi ñin investiroon danaka bo xolé ci département bi da nga nan danaka Benno Bokk yakar mo fi doon compétir ndax fo ci dem bu ben bokk yaakaar jëlul pay mo jël deuxième kon japp nañ ni ñoon ñëpp suñu andé ñu amaat defet ci li nga xamni moy élection législative yi kon cela veut dire que ni manque d'organisation la mais on n'est pas minoritaire lolo tax nak ñu ni ñun ndaw ñi yéen jóg nak jël les choses en main dugg ci biir commune yi muy les 18 communes yi nga xamni ne ñoo nekk dans le département de Tivaouane waxtaan ak jeunesse bi ndax amna na ci jeunesse ay jeune yo xamni tay manipulation bi yobuna len amna ci ay jeunes yo xamni tay mensonge bi yobuna len am ci ay jeunes yo xamni peut-être comprendre la politique du président Macky Sall parce que c'est à l'horizon 2035 donc ki xiif nak li xaar rek moy nga jox ko mu lekk waye nak gis nañ ni ay industrie bari na ci biir li nga xamni moy département bu Tivaouane ñun jeunesse bi bëgg nañ porter combat bobu muy emploi jeunesse bi ñu dem ci industrie yi nga xamni ñi ngi ci biir département bi ñu fexé ba tay ji jeunesse bi nga xamni ñoo dëkk ci biir département bi ñu mën ci gis seen bopp bu baaxa baaxa baax donc tey jii li nga xam ni tey mooy taxawal moo taxawal structure bi comme ni ñu ko waxee taxawuñ ko pour pour ah, jàppale benn responsable taxawuñ ko pour xeex benn responsable dañ ko taxawal pour jàppale le président de la république responsable boo xam ne nag tey jii gëm na nii lii ñu nekk gëm nga ni dëgg la nga ñëw dugal ci sa loxo ñun itam dellu war ni tey jii ah ñun kat donc lii président Macky Sall rek moom tax a jóg. dépp euh, responsable boo jàpp nag mu jàpp ni tey jii structure bii. xeex la wala xeex si li nga nekk wala li nga nàkk moo la kii della xeex ouvertement ba ñëpp xam ko parce que nag li ñu yëkkati yëkkati wuñ ko pour benn responsable xeexuñu ci benn responsable le président de la république ak la coalition benn bokk yaakaar moo tax ñu yëkkati ko parce que tey jii bu ngeen ko gisee tey ku mel ni Mamadou Diouf jiite li nga xam ni mooy PS ku mel ni tey jii euh, euh, Alassane euh, Mbengue jiite li nga xam ni mooy réew mi ci département bu Tivaouane ku Alassane Sall bi nga xamni tay dafa jité AFP ñi nga xamni tay moy mooy CPGE ak li nga xamni moy mouvement yi nga xamni yépp ñi ngi nekk ci département bi tay peut-être ak gàmmo bi ni mu jigee ñu ci baree baree bare am ñu jot moo tax gisu leen leen fii ñu ñëw mais ngeen xamni tay toute la jeunesse du département de Tivaouane de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la majorité présidentielle engagé wu nan pour doole seen doole dotul nekk ay doole mais benn doole lay nekk ñu jàkkaarloog ñi nga xamni moy ennemi de la république moy ñi nga xamni moy mooy opposition kon liñ leen di wax rek moy

ëllëg réew mi ci suñuy loxo lay tàbbi kon bëgg nañ buy tàbbi suñuy loxo mu tàbbee ci ñoo xam ni tey jii den ko téye du du du tàng ci ñun du nekk safara ci suñuy loxo du nekk dara suñu loxo kon combat boobu la ñuy la la ñuy mënee ñu ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum. président de la république jéggi ngeen leader la république ngeen Mm-hmm. ndax ndax da a xam ñi nga xamante ni ñoo nekk fii amatuñu benn njëriñ ci Tivaouane defaluñu dara waa Tivaouane mm-hmm. dañoo amatul lenn lu ñu taxawal seen dugal fas yéene euh, question bi xam naa déggoo ma bi may def discours bi waxuñu ni dañ ko taxawal pour tëb ay responsables yi fi nekk dañ koo taxawal pour renforcer responsable yi fi nekk soo déggee sama ci biir discours bi ñu ngi leen di ñaax ñu engagé wu waat ñu ngi leen di ñaax ñu remobiliser wu kon koy ñaax mun mu remobiliser wu donc kon nekkul koo xam ni tey dañ koy def dañ ni maanaam structure bi maanaam président de la république moo tax mu jóg responsable yi fi nekk jàpp na ni président président de la république moo tax ñu jóg ñuy liggéey kon jàpp na ni maanaam ñaar lañ kii daa bëgg fu mu fanaan kii bëgg ku ko wéttali kon jàpp naa ne tëjal néeg bi war leen war leen a jotale kon responsable yi fi nekk manam li du ben courant buy buy ramé à contre courant ci li nga xamni moy li responsable di def dañoo ñëw renforcer li ñu doon def parce que xam na ni ñun jeune yi ñoo mëna a suñu morom jeune yi pour waxtaan ak ñoom ñun jeune yi ñoo xam ni jeune yi jeunesse bi di dund ñu man ko jël ci suuf indi ko ci suñu responsable yi wax leen ko ñoom ñu agalé ko ci kaw kon danoo xam leen ni ba légui xam leen ni ba légui suñu responsable départementaux yi nekk ci département bi ci seen suuf la nekk mooy lépp lu lépp lu ndoot di leen ko jox ñu yóbbul ko président Macky Sall. nu gisee remaniement bi a été réduit en ko dara da ngeen waaw xam nga xam nga euh, euh, Tivaouane Tivaouane Tivaouane Tivaouane waaw Tivaouane waaw euh, bàyyi tuuti rek tuuti rek jàpp naa ni. ñaari ministre la mus a am ñaari ministre la mus sa am ci li nga xam ni mooy euh, gouvernement bi nga xam ni moom la président Macky Sall teg depuis 2012 muy le ministre Abdou Ndéné Sall moo fi nekkoon ministre ministre délégué nekkaat fi secrétaire d'État beneen bi ministre délégué la woon chargé des des affaires extérieure mu nekkoon madame la présidente madame Seynabou Gaye Touré depuis loolu ba léegi daanaka ay direction euh, ay direction générale lan mus di jox Tivaouane danoo d'accord ci le président euh, président de la république di def ba tax ñu jox ko carte blanche kon su joxul woon ci nangam ay direction ngi fi mu jox leen ko au conseil baa ngi fi jox na leen ci euh, euh, conseil économique et social mu ngi fi am na fi ay PCA am na fi lu nekk kon li am solo rek mooy lum ñu mën a jox moom lañ àndal lu mu mën a defit moom lañ àndal ñu ñu sommes avec le président de la république et ñu solo avec le président de la allah